asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waa yëmbal salaamaaleykum waa Sénégal comme ni ñu koy baaxoo di def rek at mu nekk ren di quatorzième année lay Ndiaye Bour Gueweul artiste yëmbal di maye seeni yi seeni ndéwénal yi koy defee nga xam ni mi ngi koy defee Chicago chaque année ren nag ma ànd ceeg waa Scienceal comme ni ñu koy defee les jeunes leaders nga xam ne ñu ngi yëmbal. vraiment bëgg seen bopp am jom doon benn bokk ndey bokk baay nga xam ni jaaxle bu waaye am boo ñëwee foofu bu la science la teg ci yoon mu nooy macha allah Laye Ndiaye dellusi waat na ci yéen quatorzième édition di ko bon vraiment ren nag anniversaire bi ñu ngi ko jagleel waa département de Kër comme ren am na département bu bees vraiment ñu naan yëmbal bu bees département bu bees ñeneen Amadou Xot suñu maire yéex nañ cee jot sama xarit sama genn wàll notre ministre de l'économie et du plan na ci yëmbal sud di def yu baax di jàppale gars yi macha allah nekk ci structure bi li man ma nga ca demoñaal lu ne ma nga ca macha allah ci ci ci dimbali njaboot moo tax ren ñu jël bagage bi rek anniversaire bi jagleel ko monsieur le ministre Amadou Xot ak waa département bu Kër Massar buñ jógee ci ministre Amadou Hott xam nga Assome Diatta moom ma nga Kër Massar di def yu baax Moustapha Mbengue moom ma nga Kër masaar di def yu baax macha allah ca comme département bi ñun ñoo ko moom ca département la ñu wax amuñu xaaj ak seen ñu ngi woo ñëpp ci tàmbale ci yëmbal Babacar Ndaw nosur nouveau maire bi nga xamee ni bi mu yegsee yëmbal macha allah gis na ni ne nee bërit lamp yëpp taal na ko macha allah. di ko ñaanal yàlla dolli jàmm ayam gi yàlla defal ko ci sutura ci mu jariñ tamit askan wi maa ngi ci woo monsieur le maire sortant muy Daouda Ndiaye maa ngi ci woo Samba Ndiaye député maa ngi ci woo macha allah Vieux Diop sama xarit maa ngi ci woo mbay Dieye directeur seen fournisseur général di ci woo waa kër Amadou Sow yi les hot girls nga xam ni ñu ci ginnaaw Amadou Sow di ko jàppale jeunesse bi Ismaïla Lebou Ndoye Mor Laye ajaratu Xadi Gay Laay la grande dame di ko ci woo di ci woo nag madame Xot Maymuna nga xam ne fi mu ne nii mi ngi mi ngi ci banlieue bi di di dem di fekki mouvement des femmes di leen jàppale di leen xelal ci ci poosam ak ci xalaatam ngir yëmbal bu bees bi ñu wax departement bees bi ñu wax Kër Massar bu bees bi ñu wax Malika bu bees bi ñu wax ñu nekk ci jàmm ak salaam moo waral anniversaire Laye njaay bi daal maa ngi woo ñëpp bàyyiwu ma kenn ndëri ay dara moor Ndiaye fàttewuma la dégg nga maa ngi leen di woo maa ngi woo Demba Sarr bu Zahra Iyane Thiam sama ministre boobu nga xam ne bu yàggul la fi indi millions yu bari joxe ko fi ñu teg ko ci loxo góor a caam bépp jeune bu bëgg a liggéey boo ñëwee waxtaan ak ñoom dina la jox financement nga liggéey delloo leen kon yàlla na jàmm yàgg ci réew mi yàlla ubbil ñu defal ñu sutura ba bis bi la 15 juillet la le 15 juillet nag vendredi lay tombeel defuñu ko sax samdi dañoo dem ni samedi day bëri programme moo tax ñooy nañ ko def vendredi à partir de 19h di ci woo ñëpp di ci woo sama jigéen joo xame ni Mariama Dramé moom it maa ngi ko ci woo ndey faatu yow ci ndey li nga bokk macha allah ngóone jàbba kooku moom lañ jox sama nijaay sàmbalaw ba seen booba ba tey dara masta ñaaw macha allah yàlla na ko yàlla dolli jàmm ba indi ko ci dëkk bi El Hadj maa ngi lay woo El Hadj Diop nga xam ni mata ci la xari Diop ngoone mbeng yaay jal sa maam nga xam ni chaque jour day ñëw di jàpp ci bagage def ba mu baax monsieur le ministre Amadou Hott daal yëmbal a ngi nii département baa ngi département baa ngi nii jàmm lañuy woote comme je suis un porteur de voix moo tax tey mu indi affaire yi rek ñëw jagleel ko waa yëmbal ñu indi jàmm sargalante deflante yu baax ñu ci joxaale hommage bii yoon ren Saaka Ndiaye nga xam ne moo nekkoon directeur action sociale ba mu jigi ñu jële ko fi yóbbu ko Allemagne euh, nommé ko ambassadeur mu wàññeeku nekkoon yëmbal doon liggéey liggéey bu rafet bu buñ ci jógee ci Saaka Ndiaye docteur Saaka Ndiaye ñëw ci Oumy Diop yàdd nga xam ne lu ne liggéey na ko vraiment ci ci ci parti benn bokk benn bokk benn bokk yaakaar maire boobu macha allah yàlla na ko yàlla rem yaay yaayu Baye Ibra macha allah yàlla na ko yàlla yokk ay leeram buñ ci buñ jógee ci maire boobu Xadi Amar tamit ma nga woon ci koñ ba nekk Chicago di def yu baax nekkoon Moodu Moodu nekk euh, itali dama ko fa daan fekk tamit mu di ma teral kon man su ma nekkee retour à la dama bëgg lu dul di woo askan wi ñuy diisoo di waxtaan doon benn ndax yëmbal yaatuwul ca bëriwul nañu koy pelloo di waxtaan doon benn bokk ndey bokk bàyyi di rootandoo di xëccandoo anniversaire bi daal mi ngi nii le 15 juillet la. ca Chicago laa koy defe woo naa jeunes yëmbal yépp woo naa ñëpp fii ku fi xewle ma demal la macha allah ku deele maa nga fa kuy ngénte maa nga fa kuy ratta sa buntu kër sax maa nga fa ca ooma lu dul sama bis bi at ba at laa koy def woo waa yëmbal dajale waat njaboot gi ñu doon benn saafonte ñoom ma jël Amadou Xot mi nga xam ni moo ne ci département bi ak Assome Diatta ni leen département ba département baa ngoog nañu booloo bokk ndey bokk baay jiital ci suñu maire Babacar Ndaw mi nga xam ne moom la fi yàlla teg yëmbal noor ñu gérer defar suñu yëmbal defar suñu Malika benn baraak Kër Massar gàddaay jaxaay bàyyiwuma kenn le 15 juillet à Chicago à yëmbal à partir de 19 heures asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu itam waa Cap TV yi nga xam ni ñoo xew ci jamono ñoom ku ñu defulu publicité baaxoo ku am sa programme woowoo leen wacc nga sa loxo seen image na set xale yaru nanu mën nañoo bokk ak mag ndab kon macha allah at mu ne ça fait 15 ans Cap TV day ñëw di ci jàpp moo tax ñu def premier lancement bi jour ba dana ñëw couvrir programme bi ñu def ko en direct Facebook YouTube Instagram fu nekk kon mbir mangoog lay njaay lay ndànd faal seen doom ñëwati na pour mayeti leen programme bi ñuy def chaque année yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ca tal ko woo naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu